maa ngi leen di leeralal communiqué bi nga xam ne mooy communiqué tey dibéer 22 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot résultat ay test yi ñu def tey ci 85 tests yi ñu def 11 ñoo ci positif onze maanaam fukk ak benn ci fukk ak benn yi juróom benn yi ay cas importé lañ juróom yi ay cas contact yoo xam ne suñu service yi ñu ngi leen doon suivre bu ñu xoolee ci bésu tey Sénégal am na 67 yoo xam ne déclaré nañ leen positif ci 67 cas yooyu juróom tane nañ ci ba génn 62 ñoo nekk ci structure hospitalière yi ñu leen di faj ba léegi ñoo ñu nekk ci structure hospitalière yi muy Touba ak dakaar seen wér-gu-yaram mu ngi jëm kanam ministre bi yore war gu wér-gu-yaram ak action sociale mu ngi féliciter di encourager personnel de santé bi nga xam ne moo nekk ci première ligne ci xeex Covid 19 mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu continue di wéyal topp tegtal yi nga xam ne jox nañ leen ko ci wàllum prévention individuelle ak collective maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam maa ngi jox kàddu gi docteur Abdoulaye Bousso ndax mu ñëwaat ci. suivi cas yi nga xam ne mooy cas contact yi ak ni ñuy def fi jamono yi ñu toll ci wàllum xeex Covid 19. les examens virologiques les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 85 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, 5 contacts suivis par nos services. À ce jour, 67 cas ont été déclarés positifs, dont 5 guéris et 62 encore sous traitement. L'état de santé des patients hospitalisés à Touba et Dakar est stable. Le ministre la Santé de l'Action sociale adresse ses vives félicitations et ses encouragements au personnel de santé du secteur public comme du secteur privé qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle encore une fois les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Euh, donc je un peu par rapport à la situation épidémiologique sur les 67 cas positifs dont a parlé M. le DC, donc les 5 guéris, nous avons 62 actuellement qui sont sous traitement. Et ce qu'on peut que les cas sont répartis dans cinq régions aujourd'hui. La région de Dakar, la région de Thiès, principalement à Hambourg, la région de Djourbel à Touba, région de saint et la région de Ziguinchor. Donc, c'est les dans lesquels aujourd'hui nous avons des cas positifs. Je peux aussi ajouter que nous avons suivi plus de, actuellement nous suivons plus de 1000 contacts. Et 969 contacts sont déjà sortis de notre suivi. Donc il des personnes contacts qui étaient liées aux quatre premiers patients que nous avons eus. Donc tous ces Et par la grâce de Dieu, aucun de ces contacts n'a été euh, contaminé secondairement. Donc c'est un élément important dans le suivi des contacts. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 1000 personnes qui sont en train d'être suivies. Et les cas nouveaux aujourd'hui, les investigations sont en cours et ces personnes aussi seront suivies dans le cadre des, euh, du suivi des contacts. Il est quand même à noter que certains contacts, en tout cas sur les derniers cas que nous avons eus, certains contacts ont Donc à chaque fois qu'on présente les nouveaux cas, il y a quand même des, et c'est essentiellement des parents proches des personnes jugées euh, qui ont été testées positives. En termes de prise en charge, aujourd'hui, nous avons euh, trois sites de prise en charge. Maintenant, nous en avons au niveau de Dakar, c'est toujours le service des maladies infectieuses de Fan, l'hôpital, l'extension de l'hôpital de, de Djamniadjo, et nous avons le centre de Touba. Et aujourd'hui, nous avons un quatrième qui est le centre hospitalier régional de Ziguinchor. Donc le patient qui a été testé positif à Ziguinchor est actuellement pris en charge au niveau du centre hospitalier de Ziguinchor. Et nous avons en perspective également d'augmenter la capacité de prise en charge au niveau de Saint-Louis. Donc euh, même si le cas a eu lieu euh, et a été transféré à Dakar, nous prévoyons d'ici la semaine prochaine de mettre à niveau, au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis, un centre de traitement les, les Également au niveau de Kaolack, le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Kaolack. Euh, au niveau de Thiès, actuellement, la structure de santé où, ont été, où a été diagnostiqué, où a été diagnostiqués les cas de Thiès va servir également de centre de traitement. Donc nous allons appliquer la même stratégie que nous avons eu à appliquer au niveau de Touba en utilisant un centre de santé qui, qui a déjà eu à recevoir des patients. Haute perspective de centre de prise en charge, c'est une structure privée donc, qui a été donnée au ministère de la Santé par un de nos confrères pour pouvoir aussi servir de site de prise en charge, c'est dans la région de, de Dakar. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même cinq régions qui sont touchées. Donc on peut valablement dire que le virus quand même est au niveau du pays. Et ça amène à la prise de conscience des populations dans le respect des règles qui ont Aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie, ce n'est pas des mesures médicales qui vont mettre fin à l'épidémie. Donc toute la stratégie médicale a été mise en œuvre sous les institutions de M. le ministre de la Santé avec la mise en place des séances de traitement. Nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui que les patients qui sont dans nos centres sont dans un bon état général et se portent mieux, avec une perspective de guérison dans les jours à venir. Nous n'avons de cas graves, mais il est important les mesures soient respectées. Parce qu'aujourd'hui, au vu de, du profil épidémiologique, il faut s'attendre effectivement à ce qu'il y encore de nouveaux cas. Parce que les mesures qui ont été prises de, limitation des mouvements, de fermeture de l'aéroport, ces effets, nous allons les voir que d'ici une quinzaine de jours. Parce qu'il faut noter que les personnes qui sont déjà rentrées sur le territoire, en appliquant la, la règle de l'incubation de, de cette maladie, donc auront jusqu'à 14 jours pour pouvoir voir leur maladie euh, ressortir ou non. Donc, sur les deux semaines à venir, il faudra s'attendre effectivement à ce qu'il y de nouveaux cas au niveau de la région. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble des structures de santé sont aujourd'hui mobilisées. Les capacités de prise en charge sont en train d'être développées, accentuées, renforcées. Et comme on le voit aujourd'hui, même les régions ont la capacité de pouvoir prendre en charge des patients. Donc l'ensemble des équipements de protection ont été mis à de ces, euh, de donc pour wax rek ci euh, mbirum épidémie bi actuellement euh, comme ni ko monsieur le directeur de cabinet waxee am nañ juróom benn fukk ak euh, juróom ñaar ñoo xam ne am nañ ko ñaar juróomi wér nañu am nañ juróom benn fukk ak ñaar yoo xam ne ñu ngi suñu centre de traitement yi actuellement ñu ngi leen di fajee ci hôpital fan ñu ngi leen di fajee ci Touba ñu ngi leen di fajee ci extension wu hôpital Diamniadio ñu ngi leen di faje également ci hôpital régional de euh, Ziguinchor donc ñu ngi vraiment di góorgóorlu pour jéem que au niveau des régions ci régions yi ñu am capacité pour jël jël en charge euh, maladie li ñu mën wax aussi mooy euh, ñi nga xam ne dañu feebar dañuy seet ñi nga xam ne lañu taxalool te am nañ lu ëpp junni ñoo xam ne ñu ngi leen ciy topp te presque jege na junni ñoo xam ne génn nañ su suñu suivi mooy ñi nga xam ne dañu taxaloon ak ñeenti malade yi nga xam ne moom lañu njëkk am ñooñu gis nañ ni ba su 14 jours yi bi mu jàllee kenn amu ci feebar bi donc ñu si sant yàlla ci loolu maintenant nag am nañ lu ëpp junni loo xam ne ñu ngi leen di topp pour xool et normalement fii ak fukki fan ak euh, ñeent nañu mën a xam est-ce que dinañu am feebar wala duñu ko am mais li ci am mooy waruñu am jaaxle suñu amee euh, cas yu bees parce que fi mu nekk nii contact yooyu nga xam ne dañu nekk contact à haut risque ñoo xam ne mun nañu am feebar bi te li aussi li am ci mesure yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ci tëj frontières yi pour ñu gis li nga xam ne moom lay indi il faut que ñu am ay fan donc dina am au moins ñaari semaine yu si yoo xam ne si nañu mën a gis effet bi nga xam ne moom la am parce que ñi dugg déjà ci dëkk bi ñooñu am nañ fukki fan ak ñeent pour seen feebar mën a génn donc bu ñu jàppee nii bi ñu ko tëjee barki démb la donc il faut ñu xaaraat tuuti donc bu ñu am jaxele su fekkee am na cas yu bees li ci am solo mooy euh, ministre de la santé joxe na ndigal en tout cas service de santé yi personnel bi yëpp ñu ngi taxaw Euh, ñu ngi jéem a yokk aussi capacité pour prise en charge bi pour mun leen faj donc pour que région yi bu nekk en tout cas ñu mën a am capacité pour mun faj maladie donc loolu moom ñu ngi ci jublu bu baax a baax donc ñu jàpp ni vraiment que jàngoro bi mi ngi ci dëkk bi loolu il faut ñu nangu ko ñu xam ko ba ku nekk si sa wàll nga mën a jël say matuwaay parce que du ay ñun waa kër docteur yi ñoo koy faj ci ku nekk sa comportement ak euh, topp ndigal yi ñu joxe. éviter regroupement yi loolu moo ñu mën a may ba nga xam ne dinañu mën a xeex jàngar bi mu génn si dëkk bi ñu bañ a am ay cas yoo xam ne dina garaaw parce que ñu ngi sant yàlla ba léegi amuñu ko mais bu ñu taxawul trop ci ba cas yi nar a bëri mun nañ ko am te loolu dina nekk indi jafe-jafe donc ñu topp ndigal yi nga xam ne moom la ñu joxe ci wàllu euh, cet beeg ak wàllu ni ñu war a tey suñu bopp aussi xelal aussi suñu ay njaboot tee leen ci période yi ba nga xam ne feebar bi dina dina mën a taxaw donc loolu la ñu amoon lu leen di wax jërëjëf